donc euh, Fadel Barro la ñu euh, dalal tey ci euh, suba si Chérif ma bàyyi la rek ñu door ngeen door laaj yi. wax naa ko moom it xam naa du ñàkk rek. gis-gis voilà moom Fadel mooy coordonnateur pour l' Afrique de l'Ouest plateforme de la protection des lanceurs d' alerte en Afrique ba léegi rek ñu ngi ciy di xeex àq ak yelleef doomu aadama. li nëbbatu ñu ñu génn ko feeñal ko mooy seen liggéey te li ñu doon wax sax continuer de la parce que coordonné nga fi Y'en a marre ah. on se rappelle événement yi fi mos a am yëpp policiers yéen dund ngeen ko jatang jatang na leen yóbbu ci kaso bi tey ji kenn si yéen sax war nañ ko àtte muy Guy Marius Sagna affaire Cheikh Niass bi gis nga ko ak témoignage yi nga xamante ni ñim nekk ndoxoon foofu ci cellule wax nañ ko lan la la inspiré comme commentaire euh, Fadel euh, jërëjëf maa ngi nuyu d'abord euh, respectueusement téléspectateur u TFM yi ak seen ñi nga xam ne dañu scotché ci seen matinal bi Tatagal Barth Djibril maa ngi lay jox ak euh, Diawo Cheikh moom suma rakk la euh, mais aussi journaliste confrère la <laughs> surtout euh, donc voilà sujet bi ngeen wax ni dafa ñu interpeller ñun ñëpp en tant que sénégalais mm-hmm. en tant que être humain mm-hmm. surtout ak ñun ban regard la ñu am ci suñu bopp mm-hmm. parce que c'est de ça ñun lan lañ yéene suñu bopp ci suñu police policier ci biir réew kenn la ci ñun donc lépp lu muy def ak lépp lu ci munti di xew dafa war a xam ni boppam la koy def parce que lui aussi mun na retrouver wu ci même situation police dina am ci moom yoon xam nañu dañuy fàtte loolu mhm. policier mun nga retrouver wu ci situation boo xam ne police dina am ci sa kaw yoon gis nañ ko fi gisaat ko fi sëgëm sàkk président la république sax wala ministre de la justice wala doomu président di nga def loo xam ne di nga retrouver wu taxaw ak sénégalais jàkkaarloo ñoom donc lañ la dénk da nga war a xool lan nga koy. kaawu Cheikh bi maa ngi d' abord jaale famille Cheikh Niass. amul di gën a métti lii. amut mais li ma gën a mooy Chérif wax na ko léegi du fi guléet te dina fi amaat parce que daf dañu bàyyi muy am ñu di ko ñu di ko banaliser. dund suñu dundin ñun dem ba ñu jëf xam ne def luñ ko sama gars yi nañ leen fàttaliku soriwut. te xam nga affaire bi du police kese c'est aussi lieu de détention yi la yàggut dara ci réew même réew kenn ci ñun même cas wu genre sénégalais jógee nekkoon Europe di fa liggéey ba mu ba ma ba ma ba ba gis ne war na ñibbisi mu ñibbisi ci réewam investir dëkkam jarbaatam war a tukki mu dimbali jarbaatam fayal ko xaalis pour que kenn jox ko visa mu dem dinaa delsi aussi ci problème mu visa yi ci côté boobu jarbaat boobu dem ba aéroport ndëkkati ki ko jox passeport bi mu ko jox baaxut ak visa bi foo visa la ñu jàpp ko aéroport yóbbu ko police yóbbu ko tribinal jugé ko ñu ne ko fan nga jëlee mu ne suma nijaayee ma fayal ñu dem jëli nijaay ja indi procureur convoqué ko mu ñëw taxaw mu ne ko non su ma jarbaat la dafa bëggoon ki fayal naa ko ban sénégalais ko fi defut. vraiment. mu ne ko temps mandat de dépôt. mu ne ko non bu dee am na lu ñuy fay ma fay ko. mais lii mënoo ma ci yóbbu kaso mm-hmm. mu ne ko non non bi ne ko doo fa yàgg une semaine nga fay def ñu àtte la ñu yóbbu ko mu dem tribunal ñu yóbbu ko rëbës directement koo xam ne xamul lii ku mu del Cheikh Niass mm-hmm. koo xam ne bi ngay ñëw Sénégal psychologiquement mm-hmm. waajal nga sa bopp mais ci lu nekk mais waajaloo sa bopp dugg kaso parce que nekkoo bandi parce que nekkoo wuyu parce que nekkoo sàcc parce que te un digne fils sa ce peuple et da nga ñibbi si sa réew fii nga yaakaar am fi jàmm yaa ngi naan daw naa tubaab yi nga xam ne dañu raciste yaa ngi naan daw naa dëkk yi nga xam ne xeer nañ nit ku ñuul nga ne ñibbisi naa sama réew waxtu màggalu Tuuba waxtu safar waxtu yonant jàmm lay xaar sama réew le même cas suñu gayeen boobu ne ñibbisi ci réewam dimbali nijaayam Jóob la sant qu'est-ce qui s'est passé mu dem tribunal mu dem rëbës ñu pikiir ko fa mu infecté muy wax faale yu ñu ko xam nga fan la mujjee dañu dagg loxo bi imputation xam nga kooku fan la mujjee mu génn ñëw di xeex ak ñoom ku gëm justice amut fu mu duggut ne pour que parce que préjudice bu la fait que ñu dagg loxoom ci lii état du Sénégal da ko war a reconnaître jox ko ndàmpaay mu nekk ci di ko xeex di ko xeex amul fu mu duggut kenn faale faalewu ko papa papa Djibril xam nga kooku fan la mujjee hmm. buntu palais Macky Sall bi ne taxaw taal boppam Cheikh Diop non wala dee hmm. ndax xol bu jeex ak xol bu naqari fan la mujjee qu'est-ce fait mooy li li li Chérif Dia wax léegi ñun naka la ñu xoolee suñu bopp ce niveau d'injustice et ce sentiment d'injustice bu doomu aadama mun a toll ba jël diineem ba jël ay yaakaaram ak fépp ci àdduna teg ko de côté taal boppam ci buntu pale pour choquer ñu ñun sénégalais yi pour que ñu yeew ci su fuñu suñu réew tollu ci anamu caaxaanee bakkanu doomu aadama ñun ñëpp ñu ne cell kenn yëngatuwut est-ce que dina leen bett beneen doomu sénégalais ñëw fi ci bësu safar ci carte grise ñu jàpp ko ci ba bakkanam rot ci ndax dinañu bett dina am yeneen nag buñ jugut ci suñu bopp. que faire alors. mais ñun ñoo war a xool suñu bopp. il yà une introspection et une, responsabilité individuelle au niveau de chaque sénégalais vis-à-vis de son autre prochain de sénégalais. lan lañ yéene suñu bopp. lan lañ yéene suñu bopp. suñu état yi xam nga dafa am laa wax ci suñu police bi ak ci suñu gendarmerie bi ak suñu institution yi hmm. da nga koy assumer c'est des institutions coloniales hmm. tubaab bu ko fi bàyyi da ko fi defoon pour noot askan wi ak jël ci moom li mu am bañ jógee indépendance ba léegi taxawuñ ci c'est xam nga tout tout Jean Collin dañu taxawut ci suñu hmm. ban police ak ban gendarmerie ak ban justice lañu ñu war a soxla pour ban Sénégal ak ban société sénégalaise lañu bëgg a tabax. Mm-hmm. loolu bu ñu ko réglé woon rek rapport yi dina changé. mais rapport bi ñu am jaay doole sénégalais dama naan lan koo ci tagal koo ci takkal dar mu yabee ko moromam. parcelle de pouvoir rek abus. parcelle même parfois dama yàlla baal. suma mbokk yi koo ci jël jàpp gardien ci buntu kër gi boo defoon ndànk bu bu takkee tuuti galon rek. dara lu ñuy wax takk dar ku takk dar jaay la ko. foog ne moo la gën. sànq mi noonu la fi sànq Omar Diop Blondin par exemple. mani mani mani euh, mani 87 kay loolu xeetu colonisation parce que gis nga tubaab bi ba mu ñëwee indi fi police état yi fi indi état colonial la du état wam. c'est c'est ça du état wam rapport de domination tout ñun dem nañu fa dund nañ fa xam nañu état bi ñu jëpp fii suñu jaabi jàpp ci institution yi di ci ngabar ngabari buñ ko xoolaatut ci yu mel ni ci la ñuy dëkk parce que xam nga lu tax mhm. parce que bii dañ ko teg ci système exploité xoqatal ak tiital li des ci askan bi ba ñu ragal leen dañ ko fonde sur la peur de de l'autorité et non pas sur la collaboration avec l'autorité. loolu ça nous amène à parler de Guy Marius Sagna parce que mooy li ma la wax cest à Guy Marius Sagna ñaari jàngat bu njëkk bi mooy que délit d'opinion lañ ko toppee beneen bi mooy dama sax jaaxle bi ma gisee ni état Sénégal commencé na def ay procès bâillon contre ses propres enfants xam nga procès bâillon mooy procès boo xam dañ la koy teg pour bayone la. noppi ñoom ñoo gën a xam ni bu demee justice dañu ko libéré. amul benn juge bu taxaw mën na ko condamné ci lii. diffusion de fausse nouvelle. ci benn benn fausse nouvelle amul droit am opinion. Mm-hmm. opinion am la wax mais dañuy créer ay xeetu procès bu njëkk ba ñun dañuy xam nañ loolu ah ñun waa PLAF rek déjà suñu suñu on a sou on est souvent victime de procès bâillon pourquoi parce que dafay am benn borom alal buy sàcc alalu réew. nga di ko reetee te ka te ko xarab ak wan de ko ràññe mu teg la ay procès yoo xam ne doo amati jot da ngay nekk ci procès ba ji tontoo ko tënki loolu la ñuy woowee procès Bayon pour bayonel la Guy Marius Sagna li ñu ko teg nii procès Bayon la parce que procès bi amul droit nekk dañuy xatal sax appareil judiciaire bi ñaareel bi mooy que mais am nañu autre chose à faire que ku ñu d'accordul jëm la teg tuuma ci réew mi le droit de le droit de pas être d'accord lu tax ñun suñu gouvernants yi mënuñu d'accord nit mun na bañ a d'accord ak ñoom. Euh, te boo d'accordul ak ñoom rek ñu ne yow. tookee lañ lay teg ci réew ban conséquence la am ci seen yéen activistes yi. est-ce que da ngeen a jàpp ne dañ leen a ërtal di leen bunduxataal wala gis nga ërtal bi am na. bunduxataal bi am na. ci la ñu dëkk mais xam nga dafa am lu may wax depuis longtemps c'est pas aujourd'hui bi ma koy wax ma jàmbal la ñu jàppoon kaso Abdoulaye Wade. tëj ko parce que dafa bindoon benn journal ci suñu journal ba ca jamono jooju boobu ñu ngi démarré le quotidien 2003 mu bindoon ne dafa am ay feeru bon en enlever yoo xam ne état bi dacay lekk xaalis ci port bi ñu jàpp ko ci tëj ko kaso jamono jooju xam nga lan laa bindoon boobu maa ngi nekk gone ci journalisme bi ma ne leen lii mooy or la ak feu maanaam safara la ak or mm. ñun nag ñoom ba buñ tàmbalee ci yaanaamaar ñu ñuy teg ay kaso di ko teg ma ne leen gis ngeen lii or la ak safara da ngeen ñuy sonal da ngeen di sonal seen bopp plus ngeen di teg ci ci ci activistes yi ak ci militants yi ak ñi nga xam ne dañu jug pour jagal réew mi plus yéen a ngi teg ci ñoom safara plus dañuy yanj hmm, dañ leen a jafal quoi dañuy gën a yànjiloo dañuy gën a brilleloo dañuy gën a wane dañuy gën a attractif hmm. askan bi dañu ciy gën a bëgg loolu aussi foog ñu état xam ko. mais est-ce que xam menaces yooyu itam war que on on va parler des cas de Simon de dinañ ci ñoom dañuy def li ñuy def pour xoqatal ñu pour tilimal ñu pour téye ñu mais ça bu ko defee daf ñuy gën a yànjiloo loolu laa la bëgg di wax moo tax ragaluñu ko ragaluñu représailles yi ragaluñu répression bi. mais da ngeen di moytu dëgg ci xal yi tamit. yéen comme du ñu ut xal uti wuñu xal dëgg ci laa wax comme nee nga da ni yaay moom laa la wax utu ñu seqiwuñ suñu tànk pour teg ko ci xalu safara dañu teg suñu tànk pour leeral askan bi bu lu ñu safara fekkee daf ñuy gën a yànjil waaye du ñu yàq loolu laay foofu laay waxee mhm. d'ailleurs activiste bu ko comprendre ba tax ngay dem di uti sax safara bu baax mu lakk la. mais soo wax ni da leen di gën a yànjal. est-ce que loolu la ñu gis tey jii ci Y'en a marre parce qu'on a que problème bi bi mu mhm. amee en perte de vitesse. par rapport ak euh, c'est quoi le mouvement est en perte xam nga aussi. dinaa doon bëgg trop Alioune Sané ñëw taxaw expliquer leeral ko parce que nit ku nekk aussi jamono ju nekk ak fi nga toll bi ma tollee ci taxaw ji defendre Y'en a marre ak expliquer Y'en a marre dama ko def assumer ko tey jii dafa am ñu ñu fa teg ñu nekk fa il faut que ñu assumer ko pleinement mais du tee lu xew ci Y'en a marre en tant que sénégalais ma am ci regard membre nga fa toujours non déglu wax la amul dara loo xam ne li xew nii dina wàññi doole waa Y'en ak Y'en a marre xam tax parce que liy tege ci kaw waa Y'en a loolu waa Y'en yi ñi nga xam ne lañu gis teg ci seen gën la Y'en a expliqué na seen conférence de presse ku foog ne Y'en a marre la Simon Kilifa Fadel Barro foofu nga juumee. ñooñu ñooy la partie visible de l'iceberg. waaw ah, mais yéen ñi mouvement bu ñu toll. mais yéen ay bopp ba tamit s'il a problème Fadel ba ñu ñu ñu doon gëmloo leen ba ñu fiy jaay ay nouveau type de sénégalais. ñu gis mm, nga bëgg bi. ci même point bi. Mm-hmm. xam nga wax waxu nu état naka tegee tuuma ci ay ñoom Guy Marius Sagna gis nga affaire ñoom kilifa bi y a une faute morale boo xam ne waa Yaana Mar wax nañu ko ba tax na dañu suspendre kilifa suspendre Simon ba keroog justice di def leeram parce que nee nañ Y'en nee na valeur yi muy woote ak li ñu gis ni ci ay vidéo àndut loolu ñëpp d'accord nañ ci wax nañ ko pare teg ko de côté mais bu loolu weesoo lan lañ ci gis mais dañ ci profité jël ay valeur doomu Sénégal ci seen njuumte ñu teg leen tuuma nga foog ne man dinaa juger kilifa ak ci ku ko xam xam nga ko ak Simon xam nga leen vingt ans ci ginnaaw ñun ñëpp ñu ci ëpp ci ñun ba ñuy nekk ñu nekk ci lu leen neex ñun ñoo fi nekkoon ci tali bi contre Abdou Diouf contre Abdou Diouf laa wax Abdou Diouf rares sont de nos jeunes générations ñi mener un combat contre Abdou Diouf. Simon je connais c'est ton ami. na ci dara <laughs> gis nga bi ñu njëkk jàpp kii ak caat di leen dóor ci ci mbedd mi. boobu sax soxlawul ñu la yóbbu police da ngay génn rek ay police ñëw taxaw dugal la yóbbu la ci àll bi dóor kër. mais ma ne bu loolu yëpp waxuma sax seen jaar-jaar ñi wax nañ ko waxaat ko waxaat ko man j'ai un devoir de wax leen dëgg def nañu erreur. xëy na nag loo xam wax nga leen si loolu suñu néegu yetu la. gis nga comme que am naa possibilité wax ak Simon wax ak kilifa ci biir li ñuy wax nañ ko waxante ci biir mais dafa am loo xam ne aussi mënuñu ko nangu ci réew mi est-ce mooy trafic de migrants xam nga trafic de migrants délit boobu fan la jógee Union européenne moo ko créé. Barça wala Barça Union européenne moo créé délit bu tudd trafic de migrants fële ca libi bi ñu doon jàpp ay ay nit ñu ay ay nit ñu ñuul di leen def jàmm. Mm-hmm. Union européenne moo créé délit yi xam nga pour lan pour téye xale yiy jógee fii Afrique di dem Europe uti di fu ñu daani seen doole. tuddeewuñ dañ leen déshumaniser nangootuñu seen dignité seen seen seen seen seen critère de de de de nu ñu koy waxeeti de voyageur. Mm-hmm. xam lu ñu leen tuddee migrant bi gis ci ay trafiquants. mais trafiquant yooyu la ñan lañ ko adressé ñun gis nga li ma la wax sànq ci njëlbeen ban regard lañ am ci suñu bopp ba ñun ñëpp ba suñu justice su ma gisee suñu justice am capacité wu taxaw xool sa beneen moroomu africain nga di ko atte ci trafic de migrants. dafay jaaxal mais étant donné que def na une une erreur aussi se paye. gis nga justice li ma lay wax nii. Mhm. bu ñu waxee wax justice bi ça va justice bi dina continuer liggéeyam jusqu'au bout. mais nañu wax ci terme yu ñuy utiliser di ko teg ci suñu bopp rien que pour politique ak bu xoqatal yàq yàq deru jàmbur. dafa am loo xam ne nga ne woon ñoom kilifa xam nga lan nga leen wax delliwul dimbalante ak jaay sa influence ak jaay say say relation pour am ci loo am dem fay sa luwaas mën nañu leen ko reprocher. waaw loolu nag mais reprocher la naan ay ay ay ay trafic de migrants xam nga luy trafic de migrants pour lan. pour nga def benn délit boo xam ne xam nga ne yaanaama sur l' international am nañu visibilité nga ne bu ma ko waxee tubaab yi dinañ xam li ma bëgg a wax te danañ leen danañ leen kii mais dañu war a xam ne nga wax leen trafic de migrants nga jël sa état yow xam nga suñu état colonial yi yow sa état nga xool sa doom say valeur fils ñoo xam ne bu dee benn fan sax taxawu nañ ko sa démocratie nga amoo leen dara loo leen wax lu dul trafic de migrants te jamono jooju ñuy wax am nga si say ñooñ ay député yoo xam ne dañ jël institution bi ni mu toll muy assemblée nationale di ko utiliser pour joxe ay visa di ko jaay nga ne ko nii de côté doo ci wax jël ay services yi nga xam ne bokk na ca doom yoo xam ne ci seen kër kër ak seen góorgóorlu am nañ mouvement boo xam ne tey jii waxatuma Sénégal waxatuma Afrique waaye adduna sépp dégg nañ leen te naw nañ leen amul dara loo ci def nga ne naa ko yàq tuddee ko ay trafic de migrants gis nga Kilifeu ak Simon li ñu def boo leen oowoon tribunal ñu taxaw en flagrant ñu layoo ko ak sénégalais yi sénégalais yi xam nañ li leen di ak li leen dul baal. mais à condition que ñu xoolante ay naw la à condition ko ñu xoolante suñu ba biir dignité bu ñu yéenee suñu bopp ñu yéene ko sénégalais yépp à condition ko ñu xam ne politique mbubb la ak jamono dafay jeex mm. am na lu gën a fort mbubb boobu am na lu gën a fort jamono jooju xam nga mooy lan mooy Sénégal ak jàmm ji fi nekk ak ay doomam yu am ay wëy yu rafet ndax Sénégal doomam bu fi am wëy wu rafet Sénégal yëpp la ko amal. mais li la Chérif wax aussi que yéen ñëpp si ay lanceurs d' lañ te vous vous sentez épié. ñu leen di surveiller de partout. mais comme du lait sur le mooy li am na loo xam ne man ak Simon ak kilifa dañ wax ci suñu biir néeg loolu wax naa ko am na wax naa ko loo xam ne da ko war a dimbalee ñi nga war a dimbali waruñ la ci tuddal xaalis. parce que nag bu ñu waxantee dëgg ban sénégalais est-ce que ndimbal ban sénégalais moo dimbaliwul mbokk sénégalais mu ah tukki dañu waxante dëgg chérif da bu ci am loolu laa wax dama ne la ndimbal dama ne la fuñ loolu laa wax ne loolu maa ngi ñoom ko waxante ci biir fu ñu war a dimbalantee bu fekkee ne alal da ca war a génn ñu la koy fay même bu doon da koy fayee ji sa luwaas man na dama sama yaram dafa daaw bu si moo waxee ci vidéo bi ne sama luwaas laay fay amaguma sama sama sama yaay foog ma jàpp ci ordonnance ma ne amu ci droit moom amu ci droit ñoom amuñu droit def faute morale boobu amuñu ci droit blanchir wu ma leen mais dama ne du prétexte pour que état du Sénégal bugg ci jàpp ne dinaa tas Y'en a marre mhm. tas ak képp koo xam ne di nga waxati pour que réew mi jëm kanam. justement les deux seen der te bu ñu génnee danañ continuer di wax parce que bu fekkee ne ci lii parce que dans le fond de quoi il s'agit mhm. xam nga bu ñu leen waxoon sax bu fekkoon ne dañ ne kilifa ak Simon dañ a jàpp ñu ne dañuy sañ sàcc deux cent millions pour jaay seen combat wala ñu ne dañ leen a jàpp ci dañu jël alal ju sénégalais yi dajale jox leen ko ñu dem jël ko yóbbul ko seen bopp yóbbu ko seen kër amuñu benn responsabilité publique mais dañu jël seen passeport ak seeni relation yu ñu am ut ci as pour que nit dem tukki. loolu moom pour que ay sénégalais tukki loolu moom du yoon. ñaata du yoon. du yoon daa du yoon mais dama ne dama bëgg ñu leeral yëf yi mu leer. naan ñi nit ñi xam ne nit ñi xam ne au delà des yu ñu ngande yu pompe yu ñuy teg ay trafic de migrants. ay yow loolu moo la ci dérangé Fadel bu ñuy wax trafic de migrants bi moo la ci dérangé mais nangu nga ni. Euh, dafa am ay question mu posé du ma nekk ci ay polémique mais damay bëgg lu nekk. déedéet du du polémique mais dañu bëgg. soxna si may ma rek ma yeggali ah. dama bëgg a leeral benn affaire. mooy ne du nekk lu xool quel problème ça soulève. je ne suis pas dans les anecdotes lu nekk du ma jël jël suma àdduna dëjee ko Sénégal ak Afrique di leen xeexal ba pare di nekk ci détail du ma ko nangu. qu'est-ce que là ça soulève comme problème ñu jéem ko régler ñun ñëpp xam nga qu'est-ce que soulève comme problème qui a le droit de voyager et qui n'a pas le droit de lu tax ñun européens yi ak occidentaux yi ak japonais yi ak chinois yi. loolooy le vrai débat deuxièmement qui a droit de vendre des visas et n'a pas le droit de vendre des dans ce pays. visa sax waroon koo pour la bëgg a tukki war nañ la kaa mën a yombal comme ñoom bu ñu bëggee ñëw après ni mu leen di yombee déglu ma rek ma nga invité te sujet bi boobu ba léegi aw moo tax maa ngi lay relancer nag. ñu débat boobu ba léegi aw ma occasion wax ci. Mhm. pour lan tey ji japonais yi dañuy jaay visa. américains yi dañuy jaay visa. français yi arab yi dañuy jaay visa pour lan ñun Sénégal ñun Sénégal ñun ak Afrique africain yi. te dirons que ko moo tax même mieux encore jaaw jaaw mieux encore mieux encore. tey jii ba uti ah. booy dem di wuti. booy dem di wuti man africain lay xeexal ak der bu ñuul gis nga bu fekkee dangay ngay dem di wuti visa ci ambassade européen yi ak euh, Amérique buñ la mayut sax 100000 francs yi duñ la ko delloo. Mm-hmm. même buñ la mayut 100000 francs yi da nga koy ñàkk. man dama ne suñu état. et une procédure épuisante. épuisante dañ lay kase c'est-à-dire que dañuy. gis nga xoolal gis nga niñ lay yoon yoon bi ñu lay jaarale. ay agence ay ba ba ngay egg ba ba ngay yegg dañ lay découragé. et ah? puis non ay fexe nañu sax xoolal ñun sax duñu jàkkaarloog ñun wax ak ñun nañu mayuñu la. Mm. dañ jël suñuy mbokk africain teg ko suñu mm, kanam ñooy xoolante ñun nañu mayuñu la. et puis même question de fond yooyu la ñoom question bi posé moo tax nit ñi di jaari fu nekk pour am visa. mais mais gis nga gis nga loolu bu ma ko waxee ba pare xam laa bëgg a feeñal dama doon xaar ci suñu état ñu am fulla ak fayda ñun suñu politiciens yi ñun ñu ànd far ginnaaw suñu ñàkk suñu désaccord yi politique yi mënut a ñàkk. France Sall Diagas jaar fële Fadel Barro jaar fële Pape Djili jaar fële mënut a ñàkk mais ginnaaw bu ñu désaccord amee désaccord ba pare. sur ce qui concerne le dañu war a far ànd pour xool naka la aaree suñu bopp di reprendre ay termes yoo xam ne européens yi ñoo ñu koy utiliser dañu ko teg ñun nit ñu ñuul yi ak ñun sénégalais parce que amuñu doole suñu état duñu ko utiliser pour di ko tegaat mais ñun aussi def pour jaay suñu visa ay ñoom parce que jëm nañ ko fi ak réciprocité maa ngi wax en 2012 bi Macky Sall doon ñëw mais lan jox ko Big Togo parce que amul transparence parce que amul demoon naa ci jamono ju visiter installation yi boo demee fële euh, ambassade bu Sénégal consulat jafe-jafe la gën a indi amuñu sax cette capacité d'organisation par notre par nos agents par la la le génie sénégalais ñu xool ak sérieux sérieux la wax c'est je suis sérieux gis nga pourquoi nga créer système visa ci muy dem ak ñëw dafa la un système d'organisation une capacité d'organisation d'un pays te ñun malheureusement on a montré nos faiblesses qu'on n'a même pas été capable d'organiser et de vendre des pour que ñu dugg Sénégal mais xam nga jaay visa bi la question de fond pour que nit dugg ci fay taxe c'est moins mais naka lañ mën a xoqatalee doomu nit ku ñuul bi ba ne ko yow amoo droit voyager yow booy voyager migrant nga te ñoom bu ñuy ñëw sa réew voyageur lañu expatrié lañu lii lañu ak lële question de fond boobu laa question de fond yooyu laa bëgg ñu poser intérêt yi ñu fi mun mënti di am non non dama bëgg ne mhm. comme li nga wax non non je rejoins li nga wax quelque part pour wax mais yow ñun place moo ñu fi indiwoon de pour wax ni également moom la ñu jeexalee wax ne justement avant boobu sax euh, wax nga tudd nañ fi ñoom kilifa ak Simon mais à côté tamit am na fa ay parlementaires yu ñu tuumaal ci loolu. Mhm. te on a l' impression que quand même c' est une justice à deux vitesses même si dernièrement wax nañ. mooy dinañ seen immunité <laughs> parlementaire bu session bi démarré le 14 octobre. am fulla am gis nga man man man su ma nekkoon député ñoom tudduma ci yi mel nii xam nga lu may njëkk a def di démissionné du ma xaar sax ay immunité parlementaire pour dem taxaw leeral sama bopp mais dañu am ay gouvernants yu ñàkk jom. gis nañ ko fi ci yeneen député yu mel ni ay Bougazali. moom démissionné tu vois je dire dañ ko forcer il ko forcer dem c'est-à-dire que il faut qu'on respecte encore nos institutions. allah fokk Sénégal ñu toogaat ci seen bopp xam ne li ñëpp bokk dafa sacré buñ ko foyee. assemblée nationale dafa nekk loo xam ne institution boo xam ne dañu war a xool sénégalais yi nga xam mais wait ñun daf ñu am benn question bu ñu posé ñun seen citoyen sénégalais ñan la ñuy fal. la question qu'on se doit bu ñu amee de tels députés ak bu ñu amee de telles institutions ñun sénégalais ñan la ñuy fal. ak de tels maires ah. ak de tels maires bu ñu taamu mooy dinañ wax maire yi ah, maire yi parce que bu fekkee ku ñëw jox la ñett xartum ak ñaari lagos ak jox la t-shirt ngeen ànd ak ñoom ngeen ànd dem. fan lañ jëm ba kañ. Mhm. ku ñëw jaay ñu alal jënd ñu ñu fal la. dem nañu ba jël élection def ko yëfu doom borom alal kese dina am ça va nous permettre de parler de la candidature que pour ñu del sax jël caution bi teg ko foo xam ne pour dissuader sénégalais yi ñu bokk ci élection. 15 millions. dinañ ci wax boo bëggee. voilà waaw dinañ wax ci PLAF parce que ñun jaaxaluma nag on parle on parle de la PLAF mu war a nekk fan ñuy tànnee jikko yu gën a rafet ci sénégalais ñu gis ko ci nit toppee ko àndale ko moom xalaatam sell na rafet na ñu teg ko ci suñu pencum ndeyu réew yi pour mu ñu fa nekkal ndax saa bu taxawee wax ñu gis ñu di ko defee noo xam ne ku la dàq jël alalu réew mi di joxe di maye. ak di jaay na man maa am ak ak rangale oto yu rafet rek ñu jël fal la. bu ko defee dañuy am toujours ay député da ngaa déposé da ngaa mais mais danañu utiliser danañu utiliser lu dul assemblée nationale. joxe nga sa ko xaalis parce que. joxe nga sa caution parce que depuis une semaine ubbi na fële ca kees bi wala yaa ngi. danañu ko joxe. incha allah fan yii di ñëw ëpp na mat parce que mun naa leen wax naa leen ca njëlbeen bi may journaliste yi di problème mu caution yi ma ne leen suñu cuisine interne la. waaw ah. hmm. deux jaaxale ñu. déggoo li ma la wax jàmmi Kaolack du man. Hmm. bu fekkee da nga foog ne. man Fadel Barro ñu dañu dañu dañu kase cette manière de faire la politique bu benn jëmm mooy taxaw indi alalam indi mën-mënam. Hmm. taxaw ne man la fal leen ma. Kaolack képp association yu mag yi fa nekk maa ngi def un clin d'œil waaye ñoom xëppil ak ñoom baaxum ah. ak ñoom ñu mel ni deewoo ñi nga xam ne ak ñoom waali waali sax ma tax di wax cest à kam association yi nekk Kaolack yëpp te gëm ne Kaolack mun na soppeeku doomi Kaolack yi nekk Kaolack yëpp nekk ci bitim réew nekk fu nekk te gëm ne Kaolack mun na soppeeku 15 millions daf ñoo tëdd. ñun bi ñu tàmbalee li ñu njëkk def mooy ne 100 personnes 1 million 15 euh, mille francs par mois muy 1 million 5 ñu ci mën suñu activité moom la ñuy doxee boobu léegi te nit ñaa koy respecté. 15 millions lu ndaw la ci suñu capacité ak suñu mën-mën. dinañu gis lu ëpp 15 millions ak li ko ëpp parce que jamono jii Kaolack war a jug jot boppam amul dara lu ko mën a téye c'est une très bien kenn du ko mais benn aspect ci kaw la parce que dégg naa fi démb waaw. fii ak mars uh-huh. incha allah di ngeen dégg na danañ lancer ñun kuréel gi nga xam ne moo ñuy porté. ñun ak suñu candidature yi ñu mel ni ñun. Mm-hmm. buñ la faloon tey par exemple waa Ansaar Dine dégg naa leen wax lu am solo parce que ñu ngi waajal màgg màggalu Medina Baye bi. ñu wax tourisme gàmm gi plutôt. tourisme religieux chaque wax ku ne xam na ni quand même Baye Niass gis nga ko sur le plan mondial boo xoolee Nigéria rek presque c'est c'est des millions de talib yu mu fa am Ghana et ñuy ñëw chaque fois di gàmmu si mais dafa mel ni. kaw Kaolack du ci tiire profil ba ñoom ñu bëgg a def boobu promotion yow am nga ci politique wala vision. gis nga Kaolack Kaolack dafa nekk benn trésor Kaolack miin la gis nga buy gars yi di uti gaz ñii di uti pétrole ñun dañuy uti Kaolack xam nga lu tax parce que Kaolack dafa am potentiel économie yépp pour non seulement moom mu génne ci ndool bi mu nekk mais génnee Sénégal ci ndóol bi mu nekk ak jafe-jafe yi mu nekk Kaolack dafa regorger lu bëri parmi ces ces multiples facettes ak ak possibilités yi fa yàlla def da cee bokk nga am Médina Baye bu mel moom cest à benn ville boo xam ne 1929 bii lañ ko sos mais mu am un leadership un rayonnement international boo xam ne ëpp na dayo nit ñi mënuñ ko sax imaginer gis nga leadership bu Medina Baye ci àdduna mm-hmm. waxuma la sax biir Afrique te li ma lay wax ni tukkikat la dama gis laajal ñoom aadama Gueye ñiy tukki da ngay dem nga gis ba ba Chine ba ci Ouïghour yi ngay wax ni Baye Niass dem na fa taxaw défendre leen am ak ñoom ay relation ba muy défendre Ouïghour yi en Chine boobu seen coow jugagul nga am dëkk bu mel noonu nekkoon am ay réseau li ñu am ci Medina Baye en ma de relation diplomatique mhm. ak dëkk yu mel ni Ghana Chine ci jamonoom ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci Union soviétique muy am ay rapport direct dëkk yeneen yu mag yi arabe yi nag waxaguma dëkku arabe yi di ko envoyé ay professeur ñun on a grande grandi am capacité de melting pot boo xam ne diaspora Medina Baye bi nga xam ne Kaolack lañ juddoo Kaolack lañ yaroo te nekk ay façon nit ku nekk ci àdduna bi man ñi ma màggandoor ak rek ay ñoom Ousmane Bouña ay waa may duguri ñi ay doomu buur lañ ñii doomu buuru kano yi la ñii ñee ñañale xale yooyu ñëpp nga xam ne mbir lañ leen tabaxee te ñu nekk tey fu nekk ci àdduna bi am alal ju ne kenn xamul gis nga loolu bu ñu ko organiser ni ñu ko war a organiser njëriñ loolu xajut mbir na kese. du ci jàmm réew mi man. jàmmi wax day nag jàmmi Kaolack googu dana nekk jàmmi Sénégal gépp ak jàmmi Afrique gépp d'accord donc da laa la bëgg ne rek Kaolack possibilité yi mu am nit ñi mënuñ ko sax waxatuma yaa ngi wax leadership religieux bi mais boo jëloon tey jii sa situation géographique xol la Kaolack xol la xool ko fu mu nekk même position am xol la ci Sénégal dafay jekk xol boo xam ne dafa connecté Sénégal wan Sénégal ne ko sa avenir allah fokk nga dëddu Europe Occident ak tubaab yi da ngay xool biir Afrique léegi laisse-moi terminer. waxagun ci place bi de. bu campagne bi nga dem wax est ce que duñ ko décompté comme Zemmour. <laughs> voilà Zemmour gars yi nga koy décompté de. est ce que gars yi duñ la décompté. <laughs> son temps de parole. bon Zemmour mi nga wax dinañu yàkkamtiwu ma dem ci sondage yi fële ca France. non mais c'est intéressant ce qu'il dit. Kaolack Kaolack Kaolack waa Kaolack moom ñu ko Sénégal yëpp ko bokk. ñëpp ko bokk Kaolack Sénégal yëpp ko moom mais. bu campagne bu ubbee incha allah non non incha allah bis boo déposé sa candidature nga ñëw ak gars yi ngeen waxtaan plateforme bi nag lañ tëj parce que amaloon ngeen benn université. Mhm. muy plateforme bi nga xamante ni lanceur d'alerte yi ñëw nañ gis nañ sax ay avocats internationaux ñoom William Bourdon bokk ci. ay mhm. congolais et lan moo nekkoon objectif bi. xam nga plateforme boobu d'abord foog ma wax lan mooy lanceur d'alerte lanceur d'alerte mooy reeteetkat bu ñu ko doon jël ci suñu culture mooy reeteetkat bi reeteet nga xam nga piccim reeteet boo demee ci Saalum piccim reeteet muy picc mi nga xam ne. bu gisee benn jaan di ñëw wala benn benn loo xam ne danger la bu jëm si ci. Mhm. yeneen rab yi. da ngay gis muy reeteet def nii laaf yi di yuuxu di tëng-tëng. piccum reeteet mooy picc bi nga xam ne dafay prévenir. Mhm. le reste de la communauté du danger imminent qui arrive. donc ñun lanceur d'alerte uti ñu ko Europe dafa am ci suñu culture xëy na ñun ñoo ñàkk suñu culture rek. reeteetkat yooyu nag maanaam artukat yi. saa bu ñu gisee ne laayaan ñi am na loo xam ne mu ngi jëm ci askan bi te dañuy maanaam nekk une nuisance à l'intérêt général nuisance grave la maanaam lii nii tuuma la goo xam ne bu ñu ko fi bàyyee baaxut ci askan bi dafa am ay citoyens yoo xam ne dañu nekk ay reteetkat dañuy jug taxaw waaye bu ñu koy def du rek ne par exemple la Barro dafa xëy rek ne man reteetkat laa déedéet du métier day fekk nga nekk ci sa biir ci sa biir liggéey mm-hmm. dans le cadre ton travail maanaam banquier nga maanaam ministre nga maanaam directeur de cabinet ministre nga maanaam fonctionnaire nga ci biir ministère yi wala ci biir justice bi nga gis ne nii ni ñu koy doxalee baaxut ci réew mi te nar na yàq réew mi nga jug seeti kuréel yu mel ni PLAF suuf la suñu plateforme yi di amee njëriñ mhm. plateforme de protection des lanceurs d'alerte boo ñëwee ci ñun bu fekkee da nga bëgg a dakkal yàqu-yàqu boobu boo ñëwee ci ñun bu ñu da nga bëgg a feeñ danañ la dimbali nga feeñ ba nga am protection boo bëggut a feeñ ñu làq ba kenn du la gis ñu liggéey ak journaliste yu mag yu mel ni yéen ak journaliste d'investigation yi ba yàqu-yàqu boobu ñu mun ko dakkal loolu moo indi. ku mel ni Assange foog nga am manipulation parce que loolu tamit mën na ci am. yow reetatkat bi. yow reetatkat bi kay boo ñu manipulé wul kenn du la manipulé. parce que yow yaa am données yow ay données la kii ay documents du yëfu ay jug rek. comme Pandora Papers parce que loolu aussi c'est le retour sur expérience Fadel mooy euh, souvent aussi da ngay gis. benn fonctionnaire bu maire Sénégal parce que wàcce nañ ko ci postam bu sañoon réew mi yëpp daanu su ko defee day daw journaliste yi mu doon daw démb buggu a gis bu sañoon ñu faatu day daw nekk ak ñoom xarit c'est-à-dire que c'est là où la manipulation intervient man te te y a rien de plus frustrant souvent ci fonctionnaire bu nekk en disgrâce avec l'autorité c'est-à-dire que bu sañoon tey réew mi yëpp daanu parce que tout simplement même d'anciens ministres ministre boo xamante ni tey nekkoon na ci biir ça n'a pas marché pour lui c'est pas pour l'intérêt général qui a été mis en cause ah moom ci boppam moo am jafe-jafe bu sañoon réew mi daanu et pour man euh, xàmme bi aussi le discernement foofu lay amee solo mais li ma te nga wax ko mu am solo mooy reeteetkat boobu nga ne du métier. Mm-hmm. comme l'activisme mm-hmm. ah, du métier. et que pour man l'activisme nouvelle forme bi nga xamante ni mu ngi koy jël souvent te wax nga ko léegi junj nga ko nee lu ñu taal dañuy gën a jafal. loolu xam nga. boo ko foyee mu lakk la. mais boo ko foyee mu lakk loolu moo tax xëy na tey xam nga le buzz à tout prix. Mm-hmm. être célèbre à tout prix. Mm-hmm. xam nga yéen bi ngeen di tàmbali seen liggéey en 2012. Mm-hmm. gars yi ñoo daw wut si leen. ne leen yéen li ngeen yëkkati dafa am solo. journaliste Sénégal comme journaliste ex euh, étranger yi ñëpp ñëw jàpp ne sax war ngeen a mën a sax euh, servir de de de de de de de guidance. ci yeneen réew yi nga xamante ni nekk na ci sous-région bi nga xamante ni dañu tumranke woon une euh, une forme euh, de contestation bu positive boobu nga xamante ni jógoon na mais de plus en plus est-ce que jàpp leen ne. et c'est là bi ngay wax sànq ma ne est-ce que tey jii nit ki mën na ne damay nekk activiste ad vitam aeternam. Mhm. wala soit mu ne dama koy jëf tey def ko métier ndax. gis na ay yenn ci xaalis ndax parce que y aussi les financements au-delà des kii mm-hmm. c'est-à-dire que aujourd'hui euh, jël la yóbbu la tëj la ci hôtel dafa ak yow une semaine ne dañ lay former ci kii nangam sangam nga tàmm loolu ba jàpp ne kon man daal fii zone de confort la mm-hmm. dinaa fi toog et c'est là où l'autre question arrive <laughs> est-ce que en 2014 mm-hmm. les élections locales est-ce que yéen amu leen regret de n'avoir pas pu demander des postes dem dagaan baatu askan bi ci sa par rapport à ta posture ba ngeen nekk ci état de grâce ak biñ leen laajee tamit question bi dafa bëri ay retentissement waaw may ma tuuti ma jël ko benn par benn. Ah, ah. parce que ñu sóoraale ñi nga malheureusement. moo ñu koy may duñu ko may. mais mën nga mën nga tontu ci nga tënk ko aussi. waaw ma tënk parce que nag bon foog ñuy leeral ndax télé boo. mais nag moom temps yi homme de terrain la bu ñuy télé bàyyi leen ko mu wax. voilà <laughs> dama gis dama gis ci télé. temps yi gis naa ko bu yëkkatee bu ret kaw la. il a un trop plein. dama gën a wax dama gën a dem ci télé <laughs> ma jox occasion bi donc euh, je dinaa ci profiter en fait d'abord alors ci rekkajkat bi. oui lanceur déjà ndax kii nga xam dafa mere état rek. pour ses ob ses objectifs personnels. Ah. am benn notion ñun dañ koy dund ah laajal Chérif. wala Cheikh Tidiane wala Fatou Kiné. des fois nit nekk aux affaires. du ñu ko mën a teg bët. du ñu mën a wax ak moom du ñu ko mën a jot téléphone gis nga il suffit que ñu dàq ko. mais il devient un rat de tous les plateaux de télévision. ñu bëri ñu falu ah. démb ñu bëri ñu falu tey ñoo nekkoon raade conférence de presse journaliste ñoo ngi yoon ci ci réaction yi lañu dëkkoon exactement tey jii bu ñu faloo fa loolu mais xam nga rappelle-moi lan la daa yónnee gis nga retekat ah. d' abord mais xam nga lan moo ñuy dimbali ñun ah. dafa am ay critères yu définir oui critères yooyu da ci bokk notion wu intérêt général voilà waxuma intérêt personnel mais intérêt général gis nga retekat du lu yomb tey jii boo ñëwoon ci suñu université bi da gis ñu mel ni Jean-Jacques Lumumba seen seen bu ñuy jugee déféré bi privilège yi ñu ci perte moo ëpp li ñu ci gagné parce que munoo nekk presque directeur dans une banque yore ay possibilités yu mag. nga gis na sérieux jarbaatu Patrice Lumumba la. jarbaatu Patrice Lumumba la am ay notorité mais mu nangu na dëkkam lii du ko yàq. moom cest à li mu nekk retraite kat da gën a sonal. li mu ko yàqal moo ëpp li mu gagné. donc du affaire caaxaan caaxaan. am na yeneen ñaari retraite kat yu tudd Navi ak Grady dañu leen a ginnaaw bu ñu jugee def seen alerte donc du lu ñuy foye ñaareel bi mooy que ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy def ñi nga xam ne ñoom ñooy def euh, yooyu ci àdduna bi ku mel ni Julian Assange gis nga ko mm-hmm. ku mel ni Snowden gis nga leen Edward Snowden prix bi ngay fay raar nañ am na beneen reetetkat boo xam ne tey ji ñu ngi koy wooyee Mamadou Tra Amadou Traoré mi ngi woon ci barki démb ci suñu liggéey mm-hmm. foo ko fekk dafay masqué wu bëggul nit ñi gis ko parce que mafia chinoise yi dañ nekk di ko wër donc du lu ñuy politiquer retraite dañ koy def pour aar askan moo tax ñu ñu créer bouclier pour mun leen défendre mun leen protéger. fën toll ci loi protection bi. parce que loolu nag bokkut ak activisme. est-ce que am na loi pour protection. bala nga Sénégal amagut loi protection ak lanceur ah, d'alerte donc tax ñun ñu ngi nekk di liggéey di góorgóorlu di wax ak état naka da war a comprendre ne ñi Allah fokk moom. loi yu leen bouclier protéger leen. parce que mooy tax ñi nga xam ne dañuy bëgg a buzz rek. duñ ci dugg yàq liggéey bi benn ñaareel bi. activisme moo bëri li ngay wax. Mm. mais comme politique la. Mm. ñaata nit ñooy foyee politique. Mm. ñaata nit ñooy jël politique defee ko moyen bu ñu utee ascension sociale te politique mooy bokk na ci lu gën a noble maanaam dafa laaj nit da ko war a def parce que sacerdoce la. Mm-hmm. mais tey jii ñaata nit ñoo koy utee alal. ñaata nit ñoo koy foyee moo tax li ñu fi gis ne ay ay wuyaay yooyu ay bugazeli. tu vois mais teewul nag du yàq. du yàq activisme ca njëlbeen ak comme ni nga ko xamee ak ñun ni ñu ko defee ak ni ñu koy defee boobu ba léegi mu nekk une parce que nit ku jug ci dëkkam ba mu neex ko mu ne ah man li ma seetaan nii li may gis nii d'accord ma ci di ko wax ak di dajale nit ñi ñu di ko wax ba mu soppeeku loolu mooy activisme. mais yi nga xam dañ koy def fàttali ne suñu réew nga xamante ni dañu nekk di ko tabax. may ma ma terminer juste ci ça. ñi ko foyee ñëpp dafay këpp ci seen kaw. waaw moo tax foofu laa bëgg a ñëw ma ne suñu réew yi nga xam dañu nekk di ko tabax ñu nekk xam nga fragilité réew yi ñu am. Mhm. yàlla xam na ne dëgërugul lool sur beaucoup d'aspects. Mm-hmm. du du dëgër lool cest dire nan la ñuy def tey ba ñàkk tamit le lanceur d'alerte wala l'activiste ba yeneen force bañ a jaar ci moom ngir déstabiliser sa réew. parce que tamit am na ci ñoo xam dañu yor seen xaalis nekk un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Euh, tey tey jii dañuy soxla koo xamante ni il tape la où ça fait très mal parce que peut-être que moom mën na jaar foofu nga xamante ni ñooñu ñoo koy dooleel nan lay def aussi ba ràññee moom mm-hmm. li mu war a jël dundee ko. ak li mu war a bañ. xam nga moo tax activisme. pour man comme ñun man boog ni ma ko xamee ak ni ma ci nekk engagement sax laa parce que activisme ça ne veut rien dire. dañu jël benn moo français rek teg ci anglais la sax au départ activisme. mais boo ko jëloon ci suñu réew fii dañu naan mooy ku jóg pour xeexal réewam. tu vois ku jóg pour xeexal réewam bu ñu ko wutal ay concepts yu compliqué bu dee réewam rek ko tax a jóg. wax dëgg ak alal mënut a jugee fenn ba yóbbu la. Mm-hmm. PAPG bi yëpp a ci responsabilité nit ki. Mm-hmm. ñun amul lu ñu gisut bopp yaanaamaar. bi nekkee ci bopp Y'en a amul ku nit ku doomu aadama bu ñu gisul ci nii ci zahir ak ci baatin na xam nga maanaam ci nit ñi nit ñi gis ñu taxaw wax ci biti wax ak yow ak ñu mën a wax ak yow ci suuf pour jéem a xool naka lañ la orienté ak naka lañ mën a yóbbee sa xeex amul lu ñu gisul ak ci biir Afrique waaye mooy li may waxandoo rek yàgg bawul dara dañu toog parce que dañu gëm suñu réew mm-hmm. suñu réew li ko jëriñ la ñuy wut wutuñ lu ko yàq mm-hmm. ña nga xam ne nag danañ uti ay alal pour dëppam dañuy jéem rek waaye du sotti en définitive parce que xamul tax parce que am na ñu mel ni ñun ak ñu mel ni yéen sénégalais yi may seetaan te gëm seen réew ne mun na jëm kanam gëm na réew mi maam dafi ba lu baax suñu mag ñu baax ñi dañ fi jëmbat lu baax ñoom bàyyi xawaan ko sàggane mhm. waaye ñun sët yi doom yi dañoo jug tey pour fara ko pour que réew mi nekk cette promesse ce pays est une promesse. Sénégal c'est mhm. une promesse. kon man tey su ma yoree sama mouvement ngeen yëg ne kii moo ngi menacer intérêt général lanceur d'alerte yi tamit war nañ ko dénoncer. lanceur d'alerte moom yoonam nekkul ci ay mouvement dafay nekk di liggéey ba gis ne mën naa la c'est des banquiers mm-hmm. c'est des comptables des ministères mm-hmm. c'est des c'est qui sont dans la dans du système et qui se rendent compte que mënuñu wax mais gis nañ ne lii ñu yore nii ak li nga xam ni mi ngi yàq réew mi hmm. ñu décidé ñëw ci ñun ñu dimbali leen ba ñu mën a loolu nit ñi yëg ko ñu mën ko fagagal du xëy rek taxaw na way mouvement bi baax nañu ñun ñooy lanceur de déedéet ay ak ay nit yoo xam ne kenn hmm. xamu leen dans l'anonymat total ñoo ngi nekk di yee àdduna hmm. di leen di leen dimbali ak di génnee xibaar yi nga xam ne askan wi war nañ ko jot jotuñu ko moo tax ma ne lanceur d'alerte c'est un outil c'est un moyen pour chaque citoyen ak ci sphère boo mën di toll sa niveau de responsabilité nga contribuer ci lu defar sa réew mooy génneel xibaar bi nga xam ne bu ñu ko fa bàyyee dana yàq réew mi mais da koy jaarale fi nga ko war a jaarale ñëwal ci plateforme yi mel ni plaf danañ la déglu danañ éviter manipulation te danañ éviter politiciens yi jël sa reeteet bi foyee ko parce que léeg-léeg politicien dina jël reeteetu benn lancer d'alerte bu mag am xibaar yu baax yi ko jox politicien jël ko bu ko defee bu ko politicien xasee ba jël diggante opposition la ak pouvoir la bokk dina tax ba dëgg ji kenn du ko xam justice tamit du mën a saisir nu mu war a saisir foog ñu delloo buum ci boy boy gi lu nekk ñu delloo ko ci place am euh, Fadel euh, Barro ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax nga jiite euh, plateforme boobu mën nañ ko duppee rek reeteetkat yi kon mu gën a gàtt jaajëfal la bu baax a baax <laughs> Pape Djibril Fall ci jàngatu tey bi am na solo lool mm. Chérif Dia ñu lay jaajëfal ci kanam tuuti liggéey bi ak rédaction Cheikh Tidiane Diaw tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi doon teewlu matinal bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bàyyi leen ngeen wéy ak programme yu télévision Futurs Médias ñu leen di dig daje ëllëg ci wax wi bu ci yàlla àndee jaa ngeen jëf